bi fas yéene woon nañ def li nga xamante ni mooy euh, conférence de presse ngir waxtaanee ana ban anam lañ fas yéene demee fi nga xamante ni mooy cité kër góor gi le 25 bi mooy dimanche waaye itamit gis nañ ni euh, la nga xamante ni moo xew fa nga xamante ni mooy euh, siège PRP dañoo ñëw fekk ñu daal di koy rek barricade bi bi Déthié Fall ñëwee di ko di laajte ne ko dañoo jot ay instruction ci kaw Euh, donc loolu moo waral ñu daal di barricade li nga xamante ni mooy boobu lépp siège nga xamante ne de Déthié Fall moo ko moom c'est un boo xamante ni loo xamante ni ba moor mën nañ ne sa kër la nga ñëw fekk ñu barricade ko ne la doo dugg loolu tamit euh, doy na waar trop waaye tamit loolu noonu xëy na euh, terewul daal dinañ def li nga xamante ni mooy seen conférence de presse bi fële ca pur ci suba ga ñu tombanteeg le 25 li xew daal di xew ñoom ñu ne dañuy marché dem ba kër Ousmane Sonko seeti ko pour jox ko li nga xamante ne mooy xaru tabaskeem daal di koy seeti waale aussi xool ci yan condition la nekk waaye gis nañu démb lañ leen ko daal di gàntal. Euh, waaw gis nga comme niñ ko gisee démb ci ay image ñun ñëpp mu mel ni démb moo nekkoon date bi nga xamante ni ñoom prévoir nañ <coughs> pour dem yeew yi seen leader di Ousmane Sonko mu nekk koo xamante ni am na liggéey bu mucc ayib boo xam ne def na ko ci la coalition Yewwi Askan Wi est-ce que démb li nga xam te ni moom mu mel ni dafa am benn absence boo xamante ni dañ ko noté ci hmm. jëm ci wàllum jeunes yi peut-être ni nekk à quelques encablures de la tabaski xañ na hmm. effet nga xam te ni hmm. moo daal di xew ba tax na daal niñ daa répondre li nga xam te ni moom mooy ay manifestation yu ñu woote wala ay rassemblement yoo xam te ni Yewwi Askan Wi dañ ko daa woote démb dajee nekk boo xamante ni exceptionnel la vu li nga xamante ni gis nañ ko ci ay image ndax boo xoolee dafa mel ni leader yi ñoom tamit sensibilisation bi nga xamante ni waroon nañ koo def ñoom ñëpp ci seen parti yi est-ce que def nañ ko parce que gis nañ fa ay leaders yoo xamante ni mën naa jàpp ne mbooloo mi topp seen ginnaaw bu fekkante ni def nañ le tout ba ñëw ak ñoom est que mm. li am am démb ab sociaux yu mel noonu kenn ku nekk aussi tamit xam ne kat le 25 prévoir nañ benn rassemblement bu mag ba jaral leen ñu tënk ñoom seen biir def benn rassemblement benn conférence de presse du mooy seen ay militants parce tey bu fekkante ni dañoo gis benn Déthié mu reculer ñu gis benn Malick Gakou bi nga xam te bi mu doon ñëw daa waroon ànd ak grand parti Déthié ànd ak waa PRP ñeneen ak ñeneen aussi ànd ak ñi nga xam te ni ñoom ñooy seen ay militants dama jàpp ne su boobaa doon na gën a mën a am ampleur waaye aussi tamit liñ doon xaar muy résultat escompté yi peut-être dinañ ko mën a am mais tey jii li ma gis démb moom mooy est-ce que ñoom li nga xam te ni moom lañ doon wootee en réalité moom moo nekk ci ñoom est tamit li nga xam te ni bëggoon nañ ko ndax dañ doon jël en compte ci ñi nga xam te ni ñoom nooy ndaw ñi wala lan moo tax ñoom bi ñëwee rek commencement bi nga xam te ci lañ échangeante ay kàddu ak ñii di force de défense de sécurité yi mu ne leen ay ordre moom moo ñu fi bàyyi mhm. ci kaw noonu rek ñu commencé daw dama jàpp ne loolu noonu kon xeex bi nekkuloon déserté ci moment boobu noonu mais waroon nañoo jima foncer jusqu'à l'épreuve du contraire foncer dans la mesure où ñu jima kat xam ne ñun ñëwuñu fi même bu fekkante ne sax dinañu bloqué si mais dañoo ñëw pour légal bu tax ñu barricade kër Ousmane Sonko kon jàpp naa ne ñoo amoon nañ droit dem rendre visite seen leader mm-hmm. buñ demee nag ba mënuñoo am accès ci kaw Ousmane Sonko ñu génnawaat foofu noonu nag kañ carrément nag lii bu fekkee dafa war dañ ñu xam ne daa war dañ bu fekkee warul dañ mais daal luñ mën wax moom mooy li nga xam te moom lañ def démb même buñ ko répété suba mille fois mm-hmm. du tax ñu réussir ko parce non seulement engagement bi nga xam te nekkul dañoo demoon juste pour wane seen présence wala dañoo demoon juste pour mottali li nga xam te ni moom mooy seen seen politique ligne bi nga xam te ni moom la ñu suivre mm-hmm. parce que man euh, politicien ak ku man doon ñu si bëri wóoluma leen mais dama jàpp ne am na benn masse électorale boo xam te ni Ousmane Sonko am na ko est ce que nekkul kenn ku nekk si ñoom day ñëw bëgg a feddali ci bëtu nit ñi kani man kat je avec Ousmane Sonko wala boobu dinaa wax soutenir boobu noonu nekkuñu di jouer au cas où Ousmane Sonko ñu recalé ko est-ce que ñoom duñu wane loo xamante nii ndaw ñi kat xam ne bu dul Ousmane Sonko ñoom diw la votel dama jàpp ne ci politique boobu noonu lañ nekk mais daal lu ma gëm ba gëm moom mooy bu fekkante ne liñ nekkoon lu dëggu ci ñoom bu fekkante ne luñ nekkoon démb ak communication bi nga xam te def nañ ko ci rassemblement bi communication bi nga xam te def nañ ko pour pour dem doxantu dem jëli Ousmane Sonko wala boog dem yeewee ji Ousmane Sonko jàpp naa ne waroon na leen a jaral ba tey jii da nga dégg ñu naan kat autant de personnes arrêté nañ leen parce que dañoo bëgg leen ñu xam ne su boobaa dañ doon xeex ngir seen dëkk mm-hmm. dañ doon xeex aussi ngir koo xamante nii à liggéey na ci yeewu askan bi mm-hmm. loo xamante nii kenn mënatu koo compter loo xamante nii kenn mënul natta dayo bi parce que jàpp naa ne Ousmane Sonko bu fekkante nii mu au tout ci li nga xamante ni moom lañ gis nii moom moo nar nekk ki nga xamante ni moom mooy perdre tamit nañu xam dëgg parce que mm. contexte bi ñu toll nii jàpp naa ne nekkoon na le bon pour ñoom ñu def le tout ba génn mbir mi une bonne fois mais daal boo fekkente ne gis na dem nañ ñëw essayé ñu gis loo xamante ni àggawul benn dayoo bi parce que gisuñu fa loo xamante ni lu extraordinaire la mm. journalistes yi nga xamante ni liggéey moo leen fay bu dañu xamante dañ koo war daw wala loo xamante ni dañ ko waroon échec jaral na leen sax bu fekkante ni leen na leen contexte bi ñu def nii bu ko defee da échec waroon nañoo mën a muñ kon ji bàyyi ba deuxième round bi muy après tabaski bi ñu def de sorte ñu ñëw génn Ousmane Sonko parce que yu mag yi am yenn dayo yi bu fekkee ñoom dañ ko échec encore une fois dafay def am njeexintal ci ñi nga xamante ni ñoo leen topp parce su boobaa nit ñi ñenn ñi mën nañoo ñëwaat retrouver waat seen conscience jàpp ne peut kat lan moo tax ñun bu ñu demee nekk ay doomu baadoolo nekk ay sénégalais lambda mu ñu jaral suñu bakkante ñi nga xam te ni ñoom lañ yaakaar ñu dem mënu leen a jaral loolu noonu dama jàpp ne loolu bu commencé am rek après beneen effet de conscience day juddu ci ñi nga xam te ni peut-être gëmuñoon Yewwi Askan Wi mais gëm nañ Ousmane Sonko te su boobaa lan mooy am mooy citoyen bi a askan bi mën a am benn base bu dëgër ngir yeewu askan bi mën a am benn euh, ndëgër laay boo xamante ni luñ bëgg mën nañ ko am parce que moo nekk benn coalition boo xamante ni élection yi fi jot a jaar yëpp gis nañ résultat yi nga xamante ni daal dina koy am kon jàpp naa ne ki nga xamante ni nag mën naa ne même bu nekkul le père fondateur tamit bokk na ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo ngànk yeewu askan bi wala boog ñoom ñoo ca gën a am yenn dayo yi jàpp naa ne yu mel nii waroon nañ mën koo taxaw ba li nga xamante ni doon na ko wone mënoon nañ koo taxaw tamit ci anam boo xamante ni dinañ xam ne bu fekkan ñoom la kat leen leen Ousmane Sonko dina leen taxaw taxaw bu mucc ayib wala boog taxaw bu raw sax bi nga xamante ni war nañ ko taxaw mais daal lu ma gëm ba gëm ko moom mooy aman na ay njeexintal yoo xamante ni ci wàllum politique da caa laxasu muy masse électorale bi nga xamante ni noté nañ ko ci Ousmane Sonko te gëm naa ne une fois si nekk di wane présence am. Mhm. alors euh, Bamba yow yaa nekkoon démb si terrain ba gis nga la nga xamante ni moo fa xew ndax mën nga revenir at ci euh, li nga xamante xew na foofu. waaw en li fa xew euh, lenn kese la Euh, dem bu ñu demee cité kër googu déjà ba ci ci rond bi pour dugg cité kër euh, foofu takk der ñoo fa nekkoon la gendarmerie ñoo ko ñoo ko encadré woon et boo avancé si biir y a police mais euh, boo egsee déjà ci fi nga xam ne moo di ci rond bi seen oto yooyu mag yooyu ñu nga fa woon boo taxawee rek juste ci rond bi mën naa compter deux trois ba quatre barrages yoo xam ne déjà ñu ngi ko mettre en place et donc pour vous dire que a a ñu mën a comprendre et tout donc on a pu peut ñu dévier dugg ci dugg bi après ñu xaw dugg noonu ci li nga xam ne moo di ci biir cité Keur Gorgui mais daal jàppal ne y avait un dispositif euh, impressionnant boo xam ne mu nga foon mais peut on peut dire que ci cité Keur Gorgui sax lañ gisoon apparemment euh, ci yenn ci ay diwaan aussi gisuñu ko ñu doon déployer li nga je pense comme ça que ça se ñoom nag bi ñu yegsee ñëw nañ waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo di takk der takk der yi wax nañ leen ñoom dañu yor ordre ne kenn rek du mën a gis ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko ci comme ça si la ñuy commencé euh, li nga xam ne moo di grenade lacrymogène je pense comme ni ko Mor waxee c'était peut-être un échec euh, wala sax euh, mbir la boo xam ne dafa avorté te li ko waral dafa bokk ci contexte man yàgg naa wax que bi nga xam ne jàpp nañ ko manifestation du période bi nga xam ne ci marché ñu bëri également ñu ngi seet nan lañ mën a rallier euh, fi nga xam ne moo di seen dëkk ñu bëri également ñu ngi xool nes lañ mën a lijjantee ay sobleeg ay pomme de donc bu fekkee contexte boobu da nga ci woote Saint-Lazare yegg ci fi nga xam ne moo di cité kër gi mais déjà déjà boo jaaree ci VDN bi Saint-Lazare ba yegg fi nga xam ne moo di cité góor gi pour nga gis sax nit c'était aussi compliqué que peut-être euh, tali bi dafa à donc nit ñu bëree bëri nanguñu woon génn parce que boo amee soo génnee sax mën nañ la teg loxo parce que j'ai vu yoo xam ne teg nañ leen loxo te pourtant mën naa am sax ñu woon ci manifestation dañ doon jàll ak yooyu si leen jotee interpellé je pense que la police également démb ils ont utilisé benn stratégie bu xaw a parce que y a une voiture qui fionnait toujours autour aux alentours de cité kat googi bu ñu gisee ñaar ñett yu taxaw après ils vont ñu wàcc yi ñëw demandé la boo boo ndànk après ils vont juste ñu yóbbu la et donc mu doon daal peut mbir la l'a certainement vu mm-hmm. que bi ñu dóoree grenade lacrymogène ñoom ñëpp dañu dugaat seen oto après ñu dem mm-hmm. à part l'arrestation de Thioro euh, ki nga xam ne moo di euh, Thioro Thioro euh, à moom ak ñeneen ñi nga xam ne teg nañ loxo mm-hmm. donc pour man daal jàppoon naa rek dañ ko war a teg suuf te lii war na sax mun a indil jafe-jafe peut du la pertinence ci li nga xam ne moom la moo wax tout à est-ce que ñoom aussi quelque part nekkuñu sax di xaw a yàqal Ousmane Sonko ci par am solo

manifestation te pourtant on a vu le f ci euh, li nga xam ne moo di l' anniversaire du 23 juin bi leen aayee pourtant ils ont opté une nouvelle euh, li nga xam ne rek moo di méthode est ce que tey sax lan moo ñu wax ne bu fekkoon ne ñoom sursoir ñu woon teguñu woon lii si suuf que quand même du Sénégal ne va pas reculer fii ak euh, tabaski bu ko defee ñu mën a féexal mm. Ousmane Sonko mu doxee ay soxlaam mais je pense que aussi quelque part lii doon na ci ne le moment n'était pas du tout adéquat te lool démb bi ma fi toogee ubbi antenne bi ñu bëri aussi même gis-gis bi la ñu am même également vision bi la ñu am même également li nga xam ne rek moo di perception bi la ñu am donc nag pour man jàpp naa ne euh, trop de li nga xam ne rek moo di ay manifestation et cetera dafay dem ba dafay xaw a diaboliser dafay dem ba dafay jaxase nit ñi ak ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko leneen lépp mooy nous sommes dans un contexte bu ci langum politique bi li ko waral bokk na ci Karim Wade ak Khalifa Sall bi nga xam ne war nañu ñëwaat Ousmane Sonko est dans l'incertitude ci ñaari dossiers yi nga xam ne mu ngi fi te aussi rappelez-vous euh, li tax peut-être ñu barricadé ko ak di président de la kàddu mu yëkkati donc je pense que mu ngi ci guddi gu bër satagul tey les acteurs politiques c'est yoo xam ne ils sont tellement dañoo muus dañoo am li nga xam ne moo di xarañte bi xarañte bi nag bu fekkee dina am mot d'ordre bu fekkee également dina am li nga xam ne rek moo di ay yi bi joxe dina ko jox ci ñenn ci ay leader te ñoom dañ ci mën a bénéficier wu mm-hmm. donc moo tax quelque part ñoom ils ont porté le combat il fait semblant de porter combat quelque part mais jàpp naa ne également ni ñu koy defee ak ni ñu koy doxalee pour man jàpp naa ne war na am na juumte bu bëree bëri boo xam ne war nañ ko xolaat parce que aussi lu jëm ci ay fête lu jëm ci yenn ay euh, mbir yi moom yaakaar naa boo ci def manifestation mm-hmm. donc yow si sa bopp sax si sa

buñ dugalee manifestation yaakaar naa ne wala njortes naa ne dañ leen ko daal di autoriser parce que préfet bi daa waxoon ne contexte bi du contexte pour ñuy amal manifestation parce que dëkk bi ñu bëri ñu ngi si jënd ay xarak jënd ay soble jënd ay pomme donc boo leen ci kaa ñu manifester ñu bëri aussi duñu génn et je loolu moo waral li nga xam ne moo di moo di échec bi. Mm-hmm. Euh, dafay revenir rek ci li nga xamante Euh, moom la Mor waxtu tout à l'heure euh, que ni ñoom dañoo bëggoon rek mbubboo ki nga xamante ne mooy Sonko di def ay gestes yoo xamante ne peut-être pour ñu ne euh, nit ñi ñii nii Ousmane Sonko la ñuy àndal pour élection yi comme ku ci mel ne Déthié Fall Malick Gakou nga xamante ne ay euh, dañoo bokk ci kujje gi euh, ci ci xëccoo bi nga xamante ne mooy euh, présidentiel dañoo bokk ci candidat yi donc bu fekkee que ne ñu ngi topp ci ginnaaw Ousmane Sonko rek xëy na mën leen a yokk li nga xamante ne mooy popularité wala aussi Ousmane Sonko bu génnee ne jàppale leen de Fall comme wala wala ñu ne jàppale leen Malick Gakou loolu dina leen indi dina leen may mille chance à peut-être ñu am dara ci li nga xamante ne mooy élection présidentielle peut-être loolu moo tax mais tamit nga woote sa mobilisation ñu agsi nga nga ñëw nga njëkk a tamit amul benn sens alors que xale yi fii lañ doon nekk ñenn ñi dee nañ ci bu ñu xooloon loolu rek mënoon nañoo jéem sax résister ñi si ñàkk seen bakkan ñi nga xamante door nañ leen tëj leen ci kaso yi ñi nga xam ne ñu ngi ci kaso ñu leen torturé loolu rek euh, jaroon na bàyyi xel li euh, ñu def démb nag vraiment Mor nekkul loo xamante ni nit ñi rafetlu nañ ko te aussi duñ ko mës a rafetlu te aussi tamit day mayaale ñi nga xamante ñoo nekkee ci pouvoir bi euh, ndam waaw noo xam nga xeex lu ci am solo moom mooy bu fekkente ni da nga koy woote nit ñi ñëw di la ci wujji mm-hmm. bu fekkente ni da nga am benn projet boo xamante ni wala dangeen am benn vision boo xamante ni xañ ne lépp ci population bi gis nañ ko wala boog topp nañ ko bu xeex di am rek yow da nga war a bokk ci ñi nga xam ni ñoo jiite xeex bi parce que euh, Sankara bi doon xeex kenn gënu koon jiitu ci xeex ba ba gis nga la ko te man fekk Patrice Lumumba aussi Congo bi ñu koy assassiné ku ne gis na taxawaay bi nga xam ni amoon na ko dafa woote nit ñi wuyu ko mais da leen a jiitu ci li nga xam te ni moom mooy xeex bi ñu topp si ginnaaw mm-hmm. Mm-hmm. kon jàpp naa ne bu fekkente ni nit da woote résistance wala da woote révolution da woote anti système a a nekk ku omniprésent mm-hmm. fépp ci yëpp lieu yoo xam te Euh, Facebook bi nekk di posté wala boog da nekk si YouTube bi di def say conférence ak yu mel noonu wax affaire bi nekkatul ay wax mais dama jàpp ne contexte bi euh, nga xamante ni moom mooy wax bi benn Guy Marius Sagna kese lañ fa gisoon muy résister di jàppale ki nga xam ne Ousmane Sonko c'est pas la première fois da leen di dañuy woote manifestation doo ci gis kenn loolu tamit nag jar na instant bi jeunesse bi bàyyi ci xel comme ça bu ëllëgee li nga xamante ne moom la ñuy def ñu jéem ci bàyyi xel bu baax a baax a baax. waaw non xam nga xam nga ba tey rek nit ñi moom euh, lii bu fekkante ne Ousmane tongo moom moo ko def. Mm-hmm. xañ na lay gën am ak njeexintal ci Ousmane Sonko mais Ousmane Sonko moom euh, laalewul taxawal mu ngi këram ñu daal di koy téye mais dama gis ne. dina amaat dina mayaat nit ñi beneen gis-gis boo xamante ni dinañ ko am ci coalition bi te aussi dina jox région ñu doon wax depuis lors que ni euh, coalition Yewwi Askan Wi dëgg lalu ko wala boo coalition Yewwi Askan Wi dañ ko def juste pour kenn ku nekk mën di profité sa morom. Mm. te dama jàpp ne su boobaa dafay nekk loo xamante ni purement politique moom moo ko lal. Mm. te est-ce que contexte bi ñu doon defee seen coalition boobu noonu ndax politique moom moo ko laloon jàppoon ne dañoo boolawoon ñoom seen biir pour euh, booloo doon benn. Euh, l'union fait la force pour mën a xeex ak seen benn adversaire bi nga xam te ni jàpp na ne moom mooy seen adversaire principal muy njiitu réew mi mais mm. moment bii nii il me semblait que ni est-ce que ñoom seen biir amul benn adversité boo xam te ni mu ngi siy dox mm. wala boog amul ñoo xamante ni mën na leen a woowee soi-disant opportuniste ñoo xam te dañuy bëgg à tout moment fu mbir mi toll rek ñuy mën di profité ci mbir boobu noonu pour gën a yokk li nga xamante ni moom mooy seen aura parce que dama la wax tey ñu bëri boo gisee mën nañ ko noter ci mouvement F24 bi doon def seen rassemblement le 12 mai gis nañ bi nga xamante ni dem nañ ba Déthié Fall waree ñëw di wax mm. boo gisee mbooloo bi niñ jógee féddali ko li nga xamante ni moom amour bi ñu am si moom boo gisee aussi tamit même Bougane Gueye bi mu jëlee kàddu bi noonu loolu lan leen dural moom mooy que xoolatuñu Ousmane Sonko wala na ki nga xamante mu ngi wane que ni moom Ousmane Sonko ni Ousmane Sonko la àndal 100 euh, pour cent nit ñi dañ lay jox benn bopp a mm-hmm. moo nekkan koo xamante tey gis nañ élection yi nga xamante ni jaar na fi juste bi nga xam te def nañ seen coalition na mu demee na mu demee moom mooy lan fexe nañ ba tey mën naa jàpp ne lépp ci ku jëggi xaw a def benn balance ci élection législative yi bu demee ba assemblée nationale ñu dem ay 52 ak 53 daanaka 50 50 la ñu gis li nga xam ni muy euh, bokk gis-gis bu Pape Diop dama rejoindre ñee pour ñee am majorité dama jàpp ne loolu rek mosul am ci ci ci histoire politique parce que xamante ni sax doon ñoo nekk en courant à moins que ñu voté ba pare ba commencé appliquer ñuy doog di xam ne ndeket lii kat benn loi bu ñu voté woon assemblée la mais kon tey bu gisee ba li nga xamante ni moom moo fi xew tey plénière fi am ñun ñëpp dañ ci intéressé wu ndax lan mm-hmm. gis nañ que ni doole xaw na tolloo foofu te loolu dama jàpp ni ginnaaw yàlla

xamante ni moment yu doy waar la gisaat nañ fi aussi tamit lépp loo xamante ni dafa am ci arrestation bu leen ñeel ñoom dañuy gis taxawaay bi nga xamante ni Ousmane Sonko am na ko ci non seulement liggéey na ba ay maire yu bëri bokk yow askan bi nekk ay maire mais dafa jóg ci allahu daalam dem dawi leen

Euh, expérience politique dinañ am aussi tamit expérience ci wàllum woote ay manifestation yu mel noonu parce que puisque manifestation yi di gën di bëri puisque nit ñi di gën a lâché parce que lan dañuy dem ba à moment donné mooy que dañuy sonn parce que lu ñuy wax moom mooy dañoo sonn ci manifestation yi te lu ñuy xeex amul bii wala boog lu ñuy xeex ba léegi moom mooy courage lan la leen di kii moom mooy dañuy découragé wu te su boobaa yow da <coughs> jàppoon naa ne sax kenn fi ñu toll nii moom mooy amaan na benn stratégie politique bu ñu doon dugal mm-hmm. mooy la fait que communication bi di daw à tout moment ak le fait que aussi ñu bàyyi ba trois jours avant tabaski bi ñu bokk cee amal jàppoon naa ne ñu ngi doon calculer que ni dinañ mën a jaxase askan bi ak li nga xam te ni moom mooy état bi fi amoon démb ak yi fi amaat tey amul différence gis nañ li nga xam te ni xew na fi

xam ne buñ nungu nekk les agneaux du sacrifice nañ nungu doon ñi nga xamante ni même bu fekkee dañuy xeex leer na nañu ki ñuy xeexal nii ba keroog Euh, épreuve du contraire du trahir leer nañ ko ñu xeexal ni tamit bu ko joxee suñu kii duñ ko regretté mais tey lu ma jàpp ba gëm ko moom mooy ñoom ña fa tey la désert de combat bi bu leen joxoon réew mi tamit boo def loolu ba mu système bi moom mooy continuer bi nga xam ni ñoom ñëpp loolu la xeex mhm. hmm. xam nga moo dee koy fàttali c'est important parce que euh, xam nga le moment aussi c'était pas fortuit c'était bien calculé parce moom aura en ce moment le président de la République dina ko bàyyi xel mm. mais finalement quand le président de la République a dit que dinaa wax après tabaski man je croyais que ñoom dinañ sursoir par rapport ak li nga xam ne euh, bëggoon nañ ko amal mm. maanaam euh, li nga xam ne rek moo di euh, peut-être li nga xam ne moo di ñàkk respecté dogal li nga xam ne moo di le préfet de Dakar ci interdiction bi nga xam ne interdit doon ko mais je pense que saa bu ñuy faral di dem aussi ci événement yi ni mel di ci organiser yenn événement yi je pense que perte de temps la et ñoom ils l'ont peut-être compris ou pas moi j'ai pas bien compris pourquoi ils sont ils sont vraiment insisté à ce que ñu

maison peut-être euh, li nga xam ne moo di raté euh, li nga xam ne moo di bataille de la mobilisation mm-hmm. mais beneen bi mooy ils n'ont pas peut-être eu gain de cause ci par rapport ak li nga xam ne bëggoon nañ ko mooy dem lever le blocus de Ousmane Sonko parce que pour euh, lever le blocus <laughs> ça trois ou quatre ou cinq personnes yi nga xam ne mm-hmm. ils ont venu avec leur voiture ils ont venu avec le garde-corps pour dire que way mm-hmm. dañuy dem jëli li nga xam ne moo di Ousmane Sonko parfois

peut-être ñu ngi en garde à vue on peut même aller en prison et si loo xam ne peut euh, jàpp naa ne waroon na mun a ñàkk ci loo xam ne aussi ci peut jàpp naa ne quand ñoom ñi nga xam ne ñoo koy wootee duñ ci loru duñ ci gaañu duñ ci am li nga xam ne moo di grenade lacrymogène parce que euh, la échec la boo xam ne ça peut ternir l'image de Yewwi Askan Wi et en dehors de ça même ça euh, mën na décryptiliser un peu li nga xam ne rek moo di

boobu également moom moo war a xolaat même si que bu fekkee ne li am démb moom il n'a rien à voir par rapport à ça mm-hmm. parce que du moom moo woote du moom moo wax génn leen mm-hmm. ñoom ñoo am initiative dem jàppale ko parce que euh, gis nañ taxawaay bi nga xam ne am na ko ci yeewi askan wi gis nañ ne également euh, mën nañ jàppal sax moom moo nekk le chef de yeewi askan wi parce que moom mooy yor groupe bi mooy wax génneel kii dugalal kii et récemment on a eu des informations comme quoi que ndaje mi nga xam ñu ngi doon ko amal dafa wax ne Khalifa Sall moom ci participer et je pense Khalifa Sall n'a pas pu participer et je pense que loolu aussi dafa doon mbir moo xam ne bu fekkee euh, ñu ngi koy bëgg di wéyal di ko def à chaque fois mën na dem ba am lu leen yàqal lu bëri bëri moo tax également euh, dans les formes de lutte ou même dans la stratégie il faudra ñuy revoir di ko di ko di di di remanier un peu le plan de faire et tout mais s'il continue toujours à dire que nañu wàcc ci mbedd mi il faudra faire face yow plusieurs fois tu as dit que nous allons faire face ak li nga xam ne ñoo di euh, li nga xam ne moo di

Sénégal donc naka lañ mën a def nag ba dal di ko changer naka lañ mën a def également ba mu amaa beneen stratégie loolu je pense que il faudra peut-être des réformes yoo xam ne réformes yu yaatu la et peut-être Ousmane Sonko li nga xam ne dal na ko quelque part it euh, je pense que quelque part bi muy ñëw dafa am discours boo xam ne tëniloon na ko mooy dafay xeex lu jëm ci anti système booy xool apparemment ñu ko wër yëpp c'est des yoo xam ne ils dans le système guddi goo xam ne boot setagul parce que il y a des en amplifini tu as vu un peu dialogue bi li nga xam ne jot na ci bàyyee ko ci dialogue boo xam ne sax mën naa jàpp ne avant ñu dialogue yi tout le monde savait que lan moo tax a jóg bi et le président de la République quand même keroog bi muy tëj il a annoncé les couleurs mooy lu jëm ci wàllum politique yenn dogal ñu ci jël il va saisir l'Assemblée nationale ci ni mu gën gaawee bu ko defee Karim Meïssa Wade Khalifa Sall ñëwaat ci langum politique bi euh, excusez-moi tu as vu modification bi ñu apporté sur l'article L28 alinéa 3 ak l'article 29 qui tout de suite Ousmane Sonko et pour bi permettre également ci ay euh, yi nga xam ne moo di changement politique yoo xam ne jëm naa ne euh, lépp rek c'est contre moom la et moom il avait bien compris parce que y avait un texte boo xam ne bindoon na ko pour wax que ne dialogue bi euh, li ko tax a jóg mooy isoler ko li ko tax a jóg également mooy négocier jëm ci wàllum troisième candidature bi et même quand tu quand tu décortiques